président li c'est clair mon choix ne sera pas subjectif il sera d'état euh, yéen nag journalistes yi ma ci y ak une chroniqueurs yi y a fabriqué cette opinion spéculation rek ce que ko parce que dégg que ñu bari dama débat vous n'êtes que dans la spéculation <laughs> dans la conjecture mooy spéculation spéculation surtout xam nga wax nga léegi ne. Hmm. est-ce que léegi président du du def lii. c'est comme si président doit agir parce que nit ñi li ñu wax wala li ñu wax ci rajo yi wala li ñu wax ci télé war na ko guider mu changer orientation. parce que dañuy gis si c'est ça ce serait dama ne dama ne si c'est ça dinaa ko xeeb trop. Hmm. te man xeebuma ko. yow xam nga ne Macky Sall ba mu yore Sénégal ba léegi. Hmm. wan na Sénégalais yi ne il est froid xam nga nit ku froid Macky Sall du Ablaye Wade ci li ma constaté ci moom bu doon Ablaye Wade il est très influençable par l'opinion xam nga fii Sénégal li yàq opinion mooy opinion dañ koy fabriquer fii. Macky Sall peut-être il a compris ça en tout cas gouvernance am bi ma ko seetee ba léegi c'est rare ma gis ko mu agir parce que am na lu ñu wax ne lii moo xew da nga koy dégg rek mu ne nemm ba mu toog def li muy def. The président son peuple hein, mais il le fait mais le peuple sait pas ce qui parle dans les radios et les télévisions. ce ne sont pas les politiciens. exemple président décidé. élection. peuple sénégalais. Euh, nañ ci. man gëm ne koy déglu. président gëm na ne peuple ba nga koy déglu te ñoom lay gën a déglu que ñi foog ne ñoom ñooy wax ak a deflu ça veut dire quoi ñi bëgg fabriquer opinion pour ñu tànn leen parce que loolu laa fi gis des actes poser des actes politiques pensant que loolu dina influer sur la décision du président ñooñu c'est légitimement hein? kenn ku nekk mu nga droit bëgg mais li gënoon légitime li gënoon baax li gënoon rationnel li nga xam ne moo nekkoon éthique politique mooy comme yow yaa ngi xam ne bëgg nga te ñàkkul président bu la tànnul nga dem da nga bokk da nga war a demal sa bopp di xaar bañ mu tànn la parce que yow sa bopp yow yaa mënal sa bopp bul yaakaar ci moom mu tànn la pour nga am légitimité ci moom te président xam na loolu nag moom xam na ne ñiy yëngatu pour bokk bëriwu ci ku mënal sa bopp te moom bokku ca kon pourquoi muy am influence ci nit ñi li ñuy wax ne diw sangam war nañ koo jël wala war nañ diw sangam moom mu la leer na ñi ma fi dégg yëpp ñu wax candidat lañ nekk président ku ci président tànnul doo dem deuxième tour. waaw dama la ko waxee rek. cest à waxuma kuñ tànn lu muy nekk de. kuñ tànnul lu mu. dama ne kiñ tànnul. Mm-hmm. bu doon dem ay deuxième tour du ca bokk mënu caa bokk. ñi ma ñëpp nag laa wax. dëgg la waaye bu la président tànnee. dina la wékk li nga xam ne moo ko moom. soo soo gi nga Ablaye Wade li mu amoon. waaw maanaam ci ñoo xam ne bu ñuy wootee xooluñ ki ñuy fal kan la. dañuy xool Ablaye ku mu bëgg fal ko. Uh-huh. Macky Sall ak déclaration bii. Uh-huh. ak li mu dox ci politique. mais surtout ak déclaration bii. Uh-huh. am na lu mel noonu. na mu toll nag mënaguma ko mesurer damay xar bi jeex. yokk na coefficient personnel am quoi. waaw clair te loolu ñi mu àndal. war nañ ko mën a xam ku fi cëpp cëppi pour man xam nga mu ngi ne tekk giñ naa si yàlla bu doon ablaye moo tere ñëw man ci ko bien mon président <laughs> waaw <laughs> mais moom yoonam nekku ci fii la jël affaire bi ni ko fi ñukk dem yoonam dem international wax grand grand grand frère am Moustapha ni ko xoolal ma gaa ñooñu di wax ne dañoo bëgg liñ bëgg lan la loolu rek moo la war a won ne la loolu rek moo la mais mais mais mais si jàngat est ce que jàpp nga ne jàpp nga ne day confirmer le fait que Amadou Ba du candidat Macky Sall laay déglu parce que xam na ne bu doonee candidat wu boppam loolu boppam dara kon foog doon candidat wu Macky Sall pour mën a am dara. mais keneen si ñoom waxu ko di. keneen mais ñi ne candidat lañ nekkuñ candidat ah. non semblé faire penser le contraire. sauf Diouf Sarr sauf Diouf Sarr Eh, day dugg eh, ci poubelle oui oui loolu laa ci poubelle ah, politique Sénégal bëgg ñu boole leen. waaw oui ñoom xam nañ ne duñ leen tànn. léegi li may laaj nag mooy <laughs> est ak li nga xam ne président Macky Sall est-ce moment bi euh, ñii di wax ne dañoo bëgg a nekk candidat ñu leen di déglu mën na leen fee bàyyi dem indi keneen wala yow jàpp nga ne ki muy tànn jël na ko bu yàgg dafa toog di observer. Euh, parce que ñii wax mooy ñan ñoo ko wax. mooy mooy ñu déglu mooy siis yi ñu déglu ñi déglu. ñi Moustapha Niass auditionné maanaam. déglu man gëwuma ne. Hmm. man Babacar Gueye. oui euh, connaissant d' abord Mous Macky Sall. Hmm. ak cër bi mu jox Niass. Hmm. Euh, mu wax Niass ne ko bu fekkee moo wax Niass. ne ko recevoir yi ñii candidat yii ka tànn du génn ci ñooñu. bu fekkee nag waxu ko ko. que Moustapha Niass moo jël initiative personnelle non c'est possible hein pour wan ko ne ko xaaral ma essayé ma dimbale la moo ko ko moo ko ko sant yi wax mën naa am moo ko ko président moo ko sant mën naa am nga moo ñàkkul it hmm. xam naa Moustapha Niass loyauté ak président Macky Sall ba fi mu toll hmm. parce que nee na Macky du ko gën a gore hmm. te gis naa ni mu ci doxee ba nit ñi bu ko ñàkkal fay di des fois ci yenn postures yi mais kon damay jàpp ne Macky moo ko wax président de la république. bi nga Macky bu ko waxee loolu. Macky munul liggéeyloo Moustapha Niasse ba pare ne ko yow de ñi ma la yónnee woon kenn baaxu ci. mais moom ci boppam mu désavoué boppam à mon avis parce que kon warna naa mën a boole ki mu yaakaar ne moom la waroon doon te nekkul ci ñooñu nga wax ci ñi ñu war a xool wala ci ñi ñu war a waxal su ko deful rek munta nag de mon point de vue ñàkkal fulla wala ñàkkal fayda ñàkk respecté mag euh, Moustapha Niass de telle sorte que mu koy yónnee ay euh, épouvante ndekete moom mu ngi ca lële loolu bu ko defee li mu liggéeyoon pour man dafay yàq lu bare bare bari ci notoriété fi ñuy toll dafa nekk ci benn nuage mm. gëw mu ne président war na am tey euh, possibilité en dehors de ñi ngeen foog am na ñoo xam ne dañ leen foog am na ñoo xam ne waxuñ ne candidat dañ leen foog <laughs> automatiquement kay. ñooñu ñu foog automatiquement lu tax nga yaakaar président mënu leen foog moom. <laughs> defal ñu wu la. Euh, ku mooy ki nga xam ne da koy tànn parce que jàpp na ne mën naa wéyal lii mu doon liggéey. Mm-hmm. kooku mooy kooku mooy nekk président ba. kooku Amadou Ba la parmi parmi li mu wax la wax de nee na tànnuma parce dama nekk sama xarit tànnuma parce dama laa bëgg tànnuma la parce dañoo bokk ndey tànnuma la parce dama nekk sama goro tànnuñu parce dama la tànn parce a ma doon defal Sénégal bu ko yeggalee te man non du nekk nag tey di benchmarkal kenn ndax noonu day mel ni déglu rek day mel ni benn benn dañ maa yónni hmm. xaar ba pare parce que bu mu fi nekkoon def benchmark six yëpp hmm. déjà. Hmm. far naa mooy lan. di nga am ñi nga tuddul ñëpp. le choix est un renoncement. Hmm. le rejet de ce que l'on choisit pas. ah oui c'est li ma bëgg wax li ma bëgg wax. <laughs>